faatoom mënees na ko méngaleeg ab guy gu fàkk ndax ab kilifa la woon ci li mu doon yëngatu ci wàllum aada ak cosaan fii ci Sénégal Thione Ballago Seck mu ngi gëne àdduna ci atum 1955 fii ci Ndakaaru nekkoon yi tamit ku ñu ràññee lool ci askan wu yaatu bi mu bokkoon di askanu géwël ñu bëri nag dañu jàpp ni Thione Ballago Seck li mu nekk woykat bu mag da ko nàmp ndax ay maamam ràññee woon nañ leen bu baax ci wàll tagg ak way ci kii di Lat Joor nekkoon fi damel bu siiw loolu fële ca Kayoor Thione Ballago Seck nag naka la nekkee ndaw rek la teel a dugg ci wàllum aada cosaan daal ci fës loolu ba tax na ci lañ ko ràññee sax ci kuréel googu di Star Band laata muy bokk ci orchestra ba ci atum 1984 moom woykat bi ci la taxawal Ramdan ak album bu siiw boo xamante ni jamono boobu amal na ko ci atum 1987 Thione Ballago Seck ànd ak tourneur bii di Félix Anagonu ci la amal tournée internationale bu njëkk ba mu jeexee nag ci atum 1988 ci la amal ñaareelu tournée internationale bi ak Félix Anagonu ba tey amal yi tamit album bu ñuy wax jëlal ci atum 1996 producteur sénégalais bi ñuy wax Ibrahima Silla ci la fas yéene woon nag produire kii di Thione Ballago Seck di bàyyi waykat bii di Wally Ballago Seck ñoom nag ci production boobu ñetti album la ñu waroon a génne mu bokk si nag album bu siiw bi nga xam ni tamit ci atum 2003 moom Ibrahima Silla produire na ko Thione Ballago Seck faatoom nag nekk naqar ak tiis boo xam ne bett na senegal yi ay jege ñaaleem di xam ne ni nag fane yëpp dafa tëddoon wopp laata muy génn àdduna moom Thione Ballago Seck nag cimetière yu Yoff nekk këram gi mu war a dëgmal di këram gu mujj ba tax direction bu Equivox TV ak mbooleemu kër gi di bokk ak tiis weeg naqar wi Sénégalais yi te itamit di ñaan suuf woyof ci kawam.